ndox mi gis ngeen dalul rek ndox bi day def retour daaneel miir yi kër yi ba ñu toxal nit ñi ci école ba ndax cinq familles yi mu jóg di leen dimbale ñoom ña ci école bi. moom amul ràññaatle pour Thiès nee na jàpp na ne Thiès waa bu mu gis mu sonn mën na laa war na laa dimbali ci alalu boppam ndax sept ngi nii mu nekk sur le terrain bii mooy jëfam xëy na mujj ci jëf yu baax. Mhm. Ablaye côté boo ko laal c'est l'homme social jox nañ ko corridor social décerné ko lu mel noonu waa cees nag moom dafa jàpp ne mënu leen a fay ndax dafa dem élection ñu jox ko dix mille trois cent voix président Macky tàllal ko loxo ne ñëwal ñu ànd ci législative yi di ko jox ko poste député mun ko jéggal naa la ko ndax xat na waaye man maa ngi continuer sama liggéey ci beneen fànn kon ku mel noonu tey dañuy sant yàlla mu dëkk cees doom bu mel noonu ku ko am war nga ko boot roganti ko ñuy wax nag ne wax dëgg yàlla Ablaye mii di jëf ci poosu boppam bis bu amee loo xam ne lu ñëpp bokk la ak cër bu ko euh, gouvernement jox Thiès waay daan ko gën a yëg président Macky Sall nag fal na gouvernement ñuy féliciter premier ministre bi ñaanal ko ndam ministre yi ñu fal Thiès ñu ngi lay nii félicité aussi waaye président dane day wati gouvernement de komba pas combat dóorante ay point waaye combat ci social bi combat ci demande sociale bi combat ci cherté de la vie ñu koy wax ne combat bu mel noonu nag soldat bi ci gën a jekk président Ablaye Dieye la boo amee sa wet Ablaye nag moom laajul cër mosul laaj tër du laaj cër mais population Thiès ñoo gis ne combat bi président woote ak fast bi mu woote ku mel ne président Ablaye Dièye am na ci cër te soldaar la ci biir soldaar yooyu kon nag ñuy wax président Macky Sall Ablaye Dièye laajul cër waaye waa Thiès ñoo koy laajal cër ndax dañoo gis ne bu amee cër waa Thiès ñoo gis ne bu Ablaye amee cër ñoom ñu am cër ndax ku raam di la boot. Mhm. bu taxawee mën laa mën a yóbbaale wala mu tingoom la. dëgg donc nag tey mën na compter sur un soldat comme Ablaye Dièye pour mën a jàppale population Thiès yi su ko defee nag ñu mën leen a jàppale ci social ndax Ablaye lu mu am def na ko ci. alalu boppam lay def sept ans kon président ku mel nii soo ko amee da nga koy teel a jëfandikoo. Mhm. mooy jox ko cër boo xam ne nii. xam nañ ne Ablaye lu mu am ci askan bi la jëm tew hmm. askan bi nga bëgg dimbali te li gën a gaaw pour dimbali askan bi moo jox Ablaye Dieye cër loolu la waa Thiès soxla hmm. donc Ablaye ñu ngi koy encouragé di ko wax ni ñu ngi ci ginnaawam hmm. Thiès mi ngi ci ginnaawam Sénégal yëpp ñu ngi gis jëf bu baax bu muy def yàlla na ko yàlla yokk ci côté yëpp te incha allah li ci kanam raw li gët ndax moom du maire nag waaye seetaanul waa Thiès xaarul nekk maire ndax population bee ko ñor maire yi fi nekk ñu ngi leen di ñaaral ñu àggale ak sago waaye Ablaye moom day def mu nekk maire mu ñàkk a nekk maire jàpp ne la c'est le maire naturel des Thiessois kon c'est le maire des cœurs c'est l'homme social c'est l'homme qu'il nous faut à Thiès c'est l'homme qu'il faut pour le président Macky Sall te li may wax intérêt président Macky la c'est pas intérêt Ablaye Dièye parce que intérêt mooy population bi la bëgg a am te population bi ki leen yëg ki leen dimbali mooy Ablaye Dieye mhm. ñu bëggal ko cër kon président na xam loolu Ablaye mi ngi fi te bu ko joxee dina def mhm. bu ko joxul di ko def waaye ñun li ñu gënal population Thiès mooy président jox ko cër ndax Ablaye mérité na ko te prouvé na ko gagné na centre de vote am gagné ay bureau de li mu déggee woon ak président yëpp def na ko li mu déggee woon ak population Thiès mi ngi koy def mhm. mooy tant que mi ngi am population yi du ñu ñàkk dana leen soutenir mais nag ki ñu defal lii duñ ko fàttale muy président Ablaye ablay daf ma sagal man moo dien ablay daf ma sagar bu baax a baax eh, Ablaye Dieye daf ma defal loo xam ne nit musuma ko defal ndax Ablaye Dieye lii ma defal mooy bëgg na sama kër baax gi baax kon lii ma defal dana xam ne maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla garaatam yokku ndax xam nañu garaatam bu yokkoo ñun de duñu fàtte ndax tey nga nekk si jafe-jafe mu ñëw dafa la lii xam ne tey bu ko yàlla séddoon tey mu am yeneen teraanga dina la woo ñu la kaay ma dénk la lii kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax waaye nag Ablaye baax na de mais li tax ñu nekk si Ablaye kan la Ameth Mbaye te bu ñu demee bu ñu demee tey suñu demee ba ànd ak Ablaye Dieye tey Ameth Mbaye la suñu raq Babacar Jonn ma ñëw fekk ko fi mun ma man dooma ji du jiitu mukk yow nga dellu ginnaaw yow yaay jiitu man mi maa nekkoon coordonnateur wu Sampaate fii sigi jot na man maa doon coordonnateur bi ñu ànd di liggéey di liggéey ba yàlla def tey lii def li am am donc ñu ñëwaat ànd ak bennoo tey ba lii ñu jëlaat lépp tegaat sama loxo kon dañ koy sant yàlla bu baax moo tax ma jiital yàlla ni maa ngi sant yàlla sant samay ñaani waajur mais Babacar ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sa bàyyi njëkk dagg fii ay terrain maye ko woon na délégué de quartier mi ngi nii sa bàyyi moo njëkk a dagg ginnaaw Samba Paté Ba sa bàyyi moo si topp moo dagg ay terrain joxe ko fii mu nekk premier adjoint maire si Pape Alioune Ndao kon loolu dañ leen koy seedeel bu baax a baax délégué de quartier nag ñun suñu waajur la suñu lépp la li mu nekk nekk xale loxoom daa set moo tax mu jiite sampaate waaye li ma ab Ablaye moom ah Ablaye Dieye de mënuñu ko fay kër gii ni mu mel ñu nekk si école ba lu ne dégg nañ ko de waaye gëmmuñ danoo danoo gëmmu toxlu noppi moo ñok moo ñu fa fekk ak lii jël lu ba dii <laughs> indil ñu ak ay dii mat laa ak yéen a gis lii lépp ay yére la ak ay dàll ña nga ne sa oto ba kon loolu ku la ko defal ku la ko defal da koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ne li ñu ñaan yàlla mooy Ablaye jiite kees ñun loolu la ñuy ñaan yàlla te waxuñu sax kees de mu nekk président lañ bëgg ndax Ablaye taxawaayam tey lii wane leen tey bu yoroon tey wallaahi ñun ñi kenn du si jooy. li tax ma ne ñu tàccul ma Mor Dieng du question de famille du question de mbokk du question de. mais Mor mi képp kuy ngénte ci Thiès Mor day taxaw sonnal la. am loo xam lu problème lu mu tuuti. taxaw. soutenir la ba def ci loo xamante ni defal bu dee li may wax du dëgg Cees a ngi ni nañ wax seetaanul kenn kenn kenn kenn fay bi ñëpp a kontaan dëkkandoo yi ñëpp ñoo remercier Ablaye Dieye di ko sant di ko gërëm di ko ñaaral fi mu bëgg a yegg nag yàlla ko fa yàlla yeggale man yéene naa ko président yàlla na ko yàlla dogal barki rasulaay sant nañ leen gërëm leen. lii nag dañ naan duguleet pourquoi ñu ne duguleet parce que nit ku nekk ak nature am boo xoolee jiit lii nature mooy fit jaan nature mooy mat waaye Ablaye nature mooy dimbali doomu aadama te yàlla rek tax donc euh, moo tax nit ñi il faut ñoom aussi ñu di ñu comprendre ñun ñi ànd ak Ablaye Dieye te xam ne ñun li ñu bëgg ci Thiès amaana Ablaye yàlla def na moom la koy loxoom mate ñu ànd ak moom ngir mu mottali boobu boobu liggéey te incha allah ci liggéey boobu ci la teg tànkam te xam naa ba keroog euh, yàlla di def li nga xam te ni tey moom la ñu bëgg ci moom euh, Ablaye nag defe naa ni defal na ko ku ne rawatina ak mbokk ki nga xam te ni nii tey muy moor Dieng nekk fii biir Sampaate ma nekk feek moom ñu ànd di liggéey muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj man ak moom dañuy nekk sur le terrain uniquement nag pour liggéeyal le président Abdoulaye Dièye kon moor ay mbokkam bu ñu yàqulee ay waajuram yàqule ay ah, moom ci boppam mu yàqule defe naa ne Ablaye lii mu def loolu rek la war a def ci kaw loolu itam di gërëm ñi nga xam ne ay responsable lañ responsable yoo xam ne macha allah ñoom ñi ngi ànd ak Ablaye mais duñ ko diggal lu dul lu baax duñ ko lu dul lu baax ku mel noonu nag di Ablaye Dieye dafa jar population thiessoise bàyyi ko xel jar aussi président de la république bàyyi ko xel Sénégal ci boppam bàyyi ko xel. woo Ablaye Abdoulaye Dieye mi nga xam ne moom moo def lii. Mm-hmm. damay wax rek ne euh, yàlla dafa wax benn aay bu am solo ci alquran mm-hmm. mu ne euh, euh, gaa ñi nga xam ne ci seen alal ci seen doole dañuy jóg di ci jihaad fi sabilillahi bi en amwalikum wa anfusikum mu ne ñooñu non seulement il mérite les remerciements de Dieu donc ku mérité remerciement di jë nan la la population bi war a def c'est une question bu am importance et du tey la ñu dégg ay jëfam du tey la ñu euh, réeree ay mbiram dégg nañ li muy def ci cees dégg nañ taxawaayam ci Thiès donc su indee lii tey te xam naa ko ne xam naa ne xeeb na ko bu bu noonu dina def lu ko ëpp sax te ku mel noonu itam dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla moom moo xam li muy bëgg moom moo xam yéen it li ngeen ko bëggal yal na nekk ngëneel yal ko jàppale di sant sama sama sama rakk Mor bi yëpp ndax bi nit ñi di jóg ci seen biir itam ànd nañ ci ak ngor ànd nañ ci ak yar ba foofu sax laay accentuer sama message gis nga nit bu indee ndimbal def lépp indee la ndimbal mm-hmm. ngalawaay ginnaaw boo ko gërëmee nga sant ko fexeel ba loolu tey mu héritage loolu mu la jox yéen ñi nga xam ne yàlla def yéen rek ab yéen i neen la yéen bokk na ngeen ko gérer ba mu rafet mm-hmm. ba kenn du leen dégg ci ginnaaw mm-hmm. ndax li koy bégloo moom mooy bu ngeen bu demee mu dégg ci ginnaawam kene ne ay ree la am waaye du fay ay xeex ka a dóorante parce que lii yëpp day jeex mm-hmm. amoon ngeen ay mat la très amoon ngeen ay siège amoon ngeen ay bagage anañu yàlla day remplacer rek nag bu koy remplacer bu mu tee nit ki mu ànd ak ngoram ngor mooy lépp da ngore ngeen ba yàlla di leen indil ay nit di leen xalaat di leen jàppale yàlla na doon jàpp fii lay jaar jeex ba faw ndax kenn bëggul ñu lay jàppale fu ñu toll yàlla na fi jaar jeex ba tay ba saay mais vraiment ma lay wax ni boo demee nga ne Abdoulaye Dieye mhm. ñun de waa Sampaate mhm. ñu ngi koy sant ñu koy gërëm mhm. parce que nag ku gërëmul nit doo gërëm yàlla yàlla sax yoon yonent bi dafa ne ko balaa ngay may kii gërëm ma ba pare li ma la defal ci xéewal ci teraanga wax ko donc bu defalee ay euh, waa koñ bi teraanga mais ñun la ko defal ndax tey lii ñun ñoo waroon suñu rein rayante indi ko ñii balaa dara di xew donc suñu amee koo xam ne jóg na jël bëgg jël alalam jël temps jël kii def ko ci ñun mais dañ koy ñaanal yàlla dañ koy sant dañ koy gërëm